ñaan yàlla rek lépp loo xamante rek am nañ ko ci ci aw yu yàlla nañ ko yàlla boole ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam naafileeg juróomeelu guddig weeru koor nag ñeenti rakkaxa la rakkaxa bu ci nekk da ngay jàng fatihatul kitab benn yoon jàng alam nasrah benn yoon jàng suratul ikhlas ñett yoon insha allahu rabbi ñu bamtuwaat ko rek fatiha benn yoon ngay jàng boo ci noppee nga jàng alam nasrah benn yoon jàng suratul ikhlas ñett yoon nga sëlmal insha allahu rabbi ah, bu ko defee rek yiw yi nga xamante ni moo làmboo ci naafile yooyu ci kàttanu yàlla ni leen ko waxee woon bu demee ba war a jeexal téere bi danañ ko laabire mbokki jullit yépp ñu xam ni rek li ñu doon def njariñal kese la ñu leen di jox rendez ci seen juróom benneelu guddi ci weeru koor wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu